je sais pas si vous avez vu live ou pas ok c'est bon là là là je pense que là c'est bon parce que gisatuma woon euh, gisuma woon live bi là c'est bon là c'est bon gars yi maa leen parce que je n'ai pas vu le le live c'était trop bizarre Fatou Diop maa lay na bi c'est que c'est nous. lay Euh, l'ambassadeur Oumawad Kër Ndiaye Lo l'infatigable ak bu réew mi maa ngi leen di ziar waa réew mi Buur Saloum Awa Fall gis nga lii maa ngi lay nuyu euh, Bambali Ndor Gueye maa ngi lay nuyu Biké Diagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax Biké Sista maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également toute ta famille toute la famille jaañ ah. euh, di xalaat bu baax a baax ndem si yàlla si ndeysaan benn Bass Diagne Hein? donc du ko di di di di ko donc Biké mang ngi donc voilà alors j'ai vu donc le live namon na mes na mes Dia Creation si mang également Ibrahima merci beaucoup voilà Hadi Ravnel maa ngi euh, from Dallas Texas fële États-Unis Mangle Ali Diagne maa Mounas euh, Zinenberg maa ça fait longtemps euh, Mounas Batumlo, je te suis Manglenui ngi beaucoup de cœur Amel Mbalo également Manglenui Nui lay nuyu euh, aussi je te suis énormément Fatou Matanyan, Yok aussi je te suis Gaï Bambakara oui Manglenui, Gaï lay Bambakara bu Baba Karmar, mon frère Dile nuyou Dile di également Mané bu que nous partagez. Halen ma xol donc sama invité bi j'aurai donc deux invités pour me avertir ko et tout dans la wax kan moy invité bi ah. voilà donc gars yi partage dugg partager ko partager Abdallah voilà donc euh, également il me suit depuis longtemps depuis presque 2016 baax yaay ñëw na yaay beaucoup de cœur pour euh, suñu sister baax yaay ana Anita Job diko nuy bu baakha

Major Sall maa ngi nuyu Abdoulatif également dinañu gën waxtaan également ci campagne par rapport ak programme euh, des candidats Aplit Cabral également toujours présente à Koulim djou Nana Cissé je te suis énormément aussi Nana euh, voilà di nuyu bu donc Gaï, yi Magalbi, euh, màggal bi xam dimanche passé donc defuñu live ndax ndax euh, depuis 2011 Ndeysan Abdallah Kane de la depuis 2011 machallah. donc gars magalbi euh, dimanche passé euh, taxoon mënuñ woon na def euh, def live parce que c'était donc lundi veille magalbi bi gars yi ñu bëri ñu magalbi, bi actualité moron magalbi euh bi amuñu woon temps pour yenn yi C'est Mohamed Ndoy aussi maa ngi lay ziar bu baax a baax Idrissa yow également xam nga donc loolu moment donc ça m'a permis aussi me reposer un petit peu. Euh, voilà donc gars yi gis ngeen week weekend bi weekend weekend bi Benno Bokk yakar, ñoo buzz président Macky dafa rek buzz bi ci loxom gars yi gars yi leen live bi dama am ben ben info bo xamanteni croustillante ci Benno Bokk choix Amadou ñi ñi commencé avant décision bi samedi ah,

Euh, on va parler donc de la désignation, enfin de, voilà, donc désignation Amoudouba, le Premier ministre, comme, euh, comme candidat Benno Bokoyakar, candidat du parti au pouvoir APR, acte de sa coalition euh, euh Benno Bokoyakar. apparemment, ça n'a pas été simple. ndax pour rien au monde nous top qui est di Amadou Ba premier ministre de sax c'était c'était assez grave voilà quand la décision a été prise rendue publique surtout sur la RTS euh, euh, le ministre Alingou Ngouille démissionné du gouvernement Il entre parenthèses il y aura un remaniement euh, donc il y a y a plus d'un mois donc avec ou sans même démission à Aly Ngouille Ndiaye a waxoon naa bu publication ni y dina am remaniement donc voilà il y dina un remaniement parce que donc je leur ai dit donc Amadou Ba sera le candidat de Beno Bokk parce que voilà bu est candidat Il faut que nous fassions un premier ministre également yenn un ministre également euh, euh, comme ñoom Aliou et donc c'est c'est forcément y aura un remaniement donc si vous vous souvenez bien je vous ai annoncé annoncé on allait un remaniement il y a presque un mois ok donc euh, voilà Aliou Ndiaye démissionné du gouvernement bi avons également la la réaction de, également du ministre, enfin, de Abdoulaye Daouda Diallo, également la semaine prochaine. nee ma aussi remaniement dina am rapidement ci biir semaine bi lolou la wax mais amna information bo concernant le président je je vais pas le donner ici ci ci live voilà c'est le président donc euh, mu ngi alors donc on va parler de ça euh, du buzz donc de Benno Bokk euh, président Macky Sall rek tey tey buzz bi tey ko rek ci biir loxom tey Sénégal ñep nak diko xaar.

Euh, euh, euh, manam manifeste li actualité boobu le gaay dinañ ñëw également dinañ ñëw également ci présidentiel bi présidentiel bi di ñëw 2024 présidentiel campagne bu ku lay doon té lu ne mën na cee xew dinañu ñëw na am lu tout lu ma leen ci ñamal euh le fait que ñu jël Amadou Ba mu nekk candidat wu Benno Bokk euh sama gaay campagne bi du yomb ça pas dire que rek c'est le, le parti au pouvoir, la coalition du régime, que ça va être comme lettre à la poste. campagne campagne Vous mettez lay dons. il va falloir que yéen ci seen bille. comme demain, il ay xarit ci yéen ci bille. Il faut que ngeen ngeen doon benn donne doon voilà nek ben say pour que voilà li ngeen bëgg mu mun a campagne bi c'est une campagne qui sera très ouverte parce que pour la première fois mu am président en exercice Bo xamante ne ni du sampaak pour campagne présidentielle donc ce sera une campagne très ouverte bu ñu demee deuxième tour ku ne mën naa gagné dinañ ci ñëw euh, bu ci kanamee léegi léegi euh, également man sama position parce que am na ku ma woo démb. Euh, sama xarit la duma ma dugg ci détails yi du wax sa turam mais danga koy nuyu bu baax a baax parce que dama ko fàttee wax ni ko est-ce que anecdote boobu mun naa koo wax euh, joxaa joxaale également turam euh, donc voilà mais sama sama waay la APR la bokk et tout il a attiré mon attention sur ça oui Mati waxoon naa la ko Amadou Ba gars yi dañ koy xeex ci biir APR bi nga doon nekk doon ko attaqué et tout man attaqué wu ma Amadou Ba donc lu dinaa ci ñëw léegi léegi te am na ku ma woo koo xamante ne kooku moom kooku kooku nekul koo xamante ne dafay nekk di di di di non c'est vraiment un proche du premier ministre xam nga mu ma nitu jàmm la Amadou Ba premier ministre nitu jàmm la voilà donc c'est Sénégal dañoo am ben dafa am loo xamante ni moom mooy suñu moom la tam, tàmm ñun dañoo démocrate te aussi dafa am lu ñu liberté d'expression voilà donc tay ku mel ni euh, Ousmane Sonko moo ñëw ak waa ex indi ñu fi loo xamante ne xamuñu ko kenn du ko tudd kenn du ko taas ku ko tudd taas ku ñu lay saaga di la xas di la di la di la di la di la euh, di la euh, menacé ñun loolu xamuñu ko ñun waxtaan lañu xam argumenté euh, ki taxaw fi ki taxaw fële mais ñun loolu lañu xam kon nak nañu dellu ci suñuy valeur nañu dellu ci lañu xamoon waaw ku nekk wax wax li nga xalaat ah argumenté ci ci ci ci yar ak teggir de manière correcte ñun loolu lañu xam donc gars yi bu ñu donc ci loolu euh, euh, tey jii également deux invités Ken ki c'est Robert Bourgi donc Robert Bourgi euh, jëloon naa fait fi également ñëpp xam ko au niveau de au niveau de la France vraiment mu Kangam, kàngam jege loolu yenn président yi ko ci mel Nicolas Sarkozy ak ñeneen ak ñeneen voilà donc aussi ñi nga xamante ni euh ses adversaires parlent de France Afrique France Afrique et tout en tout cas c'est c'est c'est un honneur de l'avoir dans mon live aujourd'hui donc monsieur Robert Bourgi dina ñëw wax le choix euh, du premier ministre Amadou comme euh, le le candidat euh, de de Benno donc la coalition donc du du parti au pouvoir également le bilan du président également Macky Sall également les yi nga Tibir euh, euh, biir euh, Benno donc may la mu tuuti am message am na ku message am na ku message donc voilà donc Gaïdal, yi avons ci aussi un bilan dinañ def aussi bilan ci euh, euh, magalo Touba bi euh, ak également suñu xarit journaliste bi envoyé na message El Modou donc ñu bilan wu li nga xamante nous mom donc Magalo Touba bi. donc gaay kon ñu ñu ci information un bilan. ba ci donc xam ngeen réunion à na ci biir semaine bi. Euh, président Macky Sall ak kàngam yi ñi nga xam ne ñoom ñoo téye euh, parti bi di APR ak coalition benn Bokk Yaakaar vraiment réunion boo xam ne ñoom entre kàngam yi kese la woon euh, coow jib na fa am na benn benn benn kàngam aussi am na la mu wax ak menacé mu def dinaa leen ko dégtal léegi léegi léegi waaye ba may leen ma tuuti rek permettez-moi ma ñëwaat ci benn mbir ñi nga xam ne dañ ma woo ma Mati, voilà bi nga attaqué premier ministre Amadou Ba euh, APR c'est vrai bëri na non, bir APR mais yi ci rivalité la adversité donc voilà buñ le manipuler etc. etc. de un j'ai pas attaqué Sur su la neexee ngeen quoi xoolaat samay live je n'ai pas attaqué le premier ministre li ma waxoon dama ciy delluwaat mooy dafa am y a des dañu premier ministre Amadou Ba dafa jege woon ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko man mii bëri woon naa ci ay xarit man mii Ousmane Sonko am na man dañ daan woote wante dañ daan waxtaan ma di ko jox sama xalaat ci lu bari ci digg euh, li ma xalaatoon mooy ma wax ko mbaa du dem ba nekk président ñu libéré loolu moo doon sama inquiétude ñu libéré ki nga xamante ne gracier ko way demee noonu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko c'était ça man sama inquiétude sama inquiétude moy mba duñu dem ba ci biir ñu euh, euh, euh, président ñu gracier Ousmane Sonko inquiétude mais j'ai rien contre le premier ministre Amadou et c'est mon droit ma ma argumenter poser ou ay questions c'est mon c'est mon droit un ni rien du tout waxuma ci ci ci ci ci eh, ci lu ñaaw waxuma ko détournement parce que xamé luñ ko ko waxuma ci eh, eh, vie privée waxuma ci lien té Sénégal encore une fois on a l'habitude ñun de argumenter bu ngeen seetloo président Abdoulaye wad moo ñu ko ñëk tambal dafa ñew dafa ñew ci bi régime moom la télé yi bari radio yi bari ku ne di wax sa xalaat euh président Macky Sall ku ne di wax sa xalaat président Macky Sall lu ko sénégalais yekul amut mu tok il a pris de la hauteur ñun Sénégal ñun Sénégal, nous sommes en démocratie dëkku wax sa xalaat coup, wax sa xalaat te la ko Qui a dëggal la wax ma lu bari ci Amadou encore une fois mbirum nguur état c'est un c'est un républicain day de yoon def la te kooku ma ko wax kooku dafa fës lool ci ci ci ci nu ko expliquer sans pour autant parce que voilà je lui garder l'anonymat par rapport à lui euh ko xamanteni ni ku dëggu la kooku ku dëggu la man ba ma ko xamee ba tey lu mu ma wax du teg du euh, kii lu mu ma wax ma gis ko nit bu dëggu la nit bo xamné dama ko jox cieur vendredi ci goudi momako wax ma fi mu jaar ak Amadou Ba ne ma premier ministre Amadou ma nitu jàmm la mu ma fitna waxu ci dara ma rapporter len ko tel que nu mako ma la nettali koy rapporter kon nak encore une fois li fi Ousmane Sonko indi won nagn ko djel tek ko nee du suñu djiko ñun homme politique yi artistes yi homme public ku munti doon ñun citoyen sénégalais ñun simple citoyen sénégalais am nañ droit joxe suñu xalaat bu ñu amee questionnement argumenté ci ñom parce que ñoo bokku suñu réew ñoo bokku ci seen suñu Sénégal té ñu Sénégal loolu lañu xam mais lépp nak def ko de manière correcte ci jamm ak salaam wax ko avec beaucoup de de de respect et de manière correcte lolou lañu xam man samay live ken xamou ci ay affaire de saga ay wax yu ñaaw ay wax yu ñagas déedéet wa on ferme cette parenthèse là donc gars yi euh, ma xamal len ni ki di président Macky Sall avant ñu rendre décision bi samedi suma ma waxee ban jour la buguma ki ma ñu on doit protéger nos sources mais nous défé réunion bobulé ñom vrai nous Abdoulaye Daouda Diallo damay n'ai j'ai rien contre Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo le ministre je ko interviewé je ko euh, voilà Sénégal mom mu ngi man plume blanche là. Abdoulaye Daouda Diallo j'ai rien contre vous voilà encore une fois xaw ma la j'ai rien contre contre yow maay daal nettali nañ ma <laughs> te dama koy rapporte ñu ne ma Abdoulaye Daouda jàll daal dafa ñëw rek xataraayu Abdoulaye Daouda Diallo nee na moom du topp ci ginnaaw Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo nee na topp ci ginnaaw jaaykatu gerte caaf sax ko gën a mu mu topp ci ginnaaw Amadou Ba lii lañ ma nettali ma ñëw indiwaatal leen ko nettaliwaat leen ko. kon ma ñëwaat man ñëwaat ca réunion ba jox nañ ma jour ba man maa ko dul sax maa ci dul jaar Abdoulaye Daouda Diallo mu ni mu wax doom dafa wax jaar-jaaram ba pare wax ba mu nekkee ministre la mu des ak parcours am mu ne moom du topp ci ginnaaw premier ministre Amadou Ba topp ci ginnaaw jaaykatu gerte caax parce que moo ko gënal mu topp ci ginnaaw premier ministre Amadou Ba li deew fa xew ñu ne déeta waaye dañ ma nettali ba tey de ñu ne ma Abdoulaye Daouda Diallo sax xaw na faa menacé waaw euh, euh, euh, sërxal na fa ay menace li président Macky Sall tontu nag du ma ko wax fii waaye daal président il a pris de la hauteur président Macky Sall il a été diplomate calme calme il a calme il a su calmer le jeu encore une fois may nettali de <laughs> Abdoulaye Daouda Diallo nee na du topp mukk mukk mukk ci ginnaaw premier ministre Amadou Ba topp ci jaaykatu gerte caax fa sax a ko gën wax nag jaar-jaaram waaw daal di daal di surxal tuuti menace président Macky daal di calmer le jeu jël bal bi bal di rebondir mu daal di ne téye bal bi daal di calmer le jeu waaw daal di diplomate nag waaw. yeneen ak yeneen yi yenn yenn yi du ci yegg ndax ay kilifa lañu du ci yegg waaye nag bu loolu weesoo xam ngeen ne ki nga xamante ne ni moom mooy. Ali euh, Aliou tamit démissionné on s'y attendait euh, man quand on nous a dit que le euh, président dina wax kan moy don, kan le candidat de Benno Bokoyaka depuis le début nous avons contacté contact yépp ce sera le premier ministre Amadou Ba. ñu dem bu ngeen fàttalikoo ca ba siège APR quelques jours après quand il a fait sa sortie mon Amadou Ba ci tv euh, cette TV wow, quelques jours après moment bobu yep, c'est la commencé di Mais il y a deux personnes yo ni ñom ñom ñom ñom mais au début je n'entendais que Amadou mais dañ dem ba ci biir gaay di wax euh, euh, premier ministre ak Boun Abdallah Diom. semaine le mardi wala mercredi nit message ne ma la un on parlait Amadou Ba ak Abdallah mais c'est sûr et certain mati ce sera Amoudouba. Ba waaye xoolal da nga mën netali ma ne ko ba samedi joté ba ñu né Amadou Ba noddu ko ci RTS Moustapha euh, euh noddu ko ci RTS ma sama sama source bi kangam nga bu ak également ñi may ñi may liggéeyal ci xeex ci combat ba depuis 2021 ba tay ma ngi leen di nuyu ci souf ñi may jàppale ca suuf maa ngi leen di ziar bu baax a baax waaw kay kon nag gaay yi euh, dans sept minutes ma ngi wër jël sama invité ni ma leen ko euh élection bii di ñëw euh, mais d'abord mettez des cœurs pour le président Macky Sall gaay def leen ay cœur pour le président Macky Sall ndax lii may waaj wax te lii may wax waxuma ko que rek sànni ko limay may de wax c'est euh, mots yu euh, euh, phrase bi may prononcer chaque mot a son sens chaque mot a son sens président Macky Sall non <laughs> machallah et eh, président Macky Sall du coomo euh jappelen ne président Macky Sall du du sampaat ndëndëm waaye kii ñëw di nekk président incha allah 2024 mun na nekk Amadou Ba ak même bu nekkul Amadou Ba bu dee keneen lay doon tamit Sénégal président bu koy buy bàyyi dëkk bi buy bàyyi euh, euh, buy wàcc dina ko teg ci ay loxo yu wóor ma bamtuwaat ko président Macky def na kéemtalaay kàttanam ba nga xam ni même bu dee Amadou Ba bu nekkee président. baxna même bu nekkul président déglu leen bu bax même buñ ko choisir même bu nekkul président Sénégal dinañ ko tek ci ay loxo yu wóor te président Macky Sall il a veillé à ça. kon maximum de respect beaucoup de cœur pour le président Macky Sall te xam ngeen ne macha du coomo <laughs> sama gaay yi présidentiel bi di ñew du yomb.

na nekk ànd bu sincère bu ànd bi sincère kenn du leen àttan boobaa moom moom moom premier tour sax moom c'est moom kenn du leen àttan waaye bu sincère lee keneen lay jóge fële fokkati ndam li dem di dem di dem di dem te du ngeen xam fu mu leen jaar opposant mën na ñëw jël gan jël li man nag faal man Amadou Ba premier ministre nekk président Sénégal dama naan wiiw su ma su ma nelawee yandoor bu ñu manee nee Idrissa Seck moo nekk président du Sénégal dama naan wiiw su ma tëddee ba naan nelaw ba yangoor ba yandoor suñu ma nee Karim Wade moo nekk président de la République dama naan wiiw ma tëddee nelaw ba yandoor su ma nee Khalifa Sall idem dama naan wiiw Khalifa su ma tëddee nelaw ba yandoor xam nga man lan lay dundu tout sauf Sonko man ku ñëw baax na tout sauf Sonko laa leen waxoon ba tey tout sauf Sonko voilà man ku ñëw baax na dara dérangé wu ma faruma ci loolu nag xam leen ne waa benn waa waa waa waa réew mi sànq la la la la waxtaan ak ñoom Babacar Mar waxtaan ak euh, Maane waa réew mi ñu ne ma xam nga ne suñu waa ji c'est un homme d'état bëgg jàmm ak parcours exceptionnel ma ne ko temps yi gën déggu leen de ñu ne ma ñu ngi ci suuf di liggéey ah waxal ma askan bi ñu ne ma waxal ñu askan bi ne suñu góor gi mi ngi liggéey Idrissa sa bés bu ne bëreet mati nga xam ne lépp dëgg la ma ne ana ñoom na fi jàll waa PDS ñu ne ma ñu ngi toog di liggéey bés bu Karim daagoo ci biir Ndakaaru biir Sénégal ngeen xam ne lépp dëgg la. ma ne ana Khalifa Sall ñu ne ma ñu ngi campagne ndànk bés bu ñu ne bëreet ngeen xam ne lépp dëgg la kon nag waa ama du ak ñoom sax ñoom aussi ñu ngi ñu ngi takku ba mel ni kii takku naa naa kon campagne yi dina xumut a dagaan tout est possible fi may jeexalee nag balaa ma jël samay invité mooy euh, remaniement dina am. man dañu ma nettali rek ma ñëw nettali waat Balde Abdoulaye Balde premier ministre tout est possible nak keneen mën na rumeurs. rumeur rek la nak voilà donc recoup defuma recoupement ni rien c'est pas une bonne information c'est rumeur la comme euh, Abdoulaye Balde comme premier ministre par rapport à son parcours comme ministre des forces armées jiite won dik donc un parcours bu exceptionnel yore woon mairie bu Ziguinchor nekk tey directeur général APIX ñu ne ma lu mën a nekk la Balde futur premier ministre. ñu ne ma nag euh, euh, ma nga fay la ca Paraya na ma laajte pour ñoom idée ak ñoom seen ñu ne ma ma nga Paraya di waxtaan lëkkaloo euh, maanaam en conclave ak waa ak centriste yi. ñu ne ma ña nga jigéen soor gars yi ralliement yi comme tulleeg màlle comme Sonko defatul buzz xewi na. dégg naa daal ralliement yi comme tulleeg màlle man leen Casamance sax nu mu demee foofu ñu ne ma Casamance de mati nu ñu ko tuddee ja jabandong jabandong ya wa ca jabandong ya daal ñoo nga ca ñom daal seen mbirum kankurang bo fu mu nekk ni Casamance yi looloo lu njitteel fatte nañu usu bébé fatte nañu boy sebi li aduna waji fatte nañ ko actualité bi rombu nako donc gaay duñ def lu amna kuma yone message Euh, beaucoup de démissions en vue dans le camp présidentiel avec le choix. Mamboy Diao va partir. On nous parle la démission de Mambaïnian. Ah oui donc euh, euh, may ma invité est-ce que euh, est-ce que est-ce que je peux donner ton nom ken ku ben voilà ku nek biir APR voilà ñepp xam ko ci biir APR message ma dina am démission yu donc fii ak fan di ngeen di dégg démission yu baree baree bari euh, ci biir camp présidentiel nénañu d'accord, bayina accord dina bàyyi noonu ki kangam la ci biir APR momu mu li message nee garde ça pour toi mais dina wa duma waxe tour bi mais na joxe information bi Nena ma dina am démission yu bari ci camp présidentiel bi fii ak fan nénañ ma Mame Boye du samay wax de li nit ma wax ci biir la né mu ne ma Mame Boye dina dina dem ginnaaw démission wu ali Ngouille Ndiaye Mame dina démissionné on nous parle également de Mame ah ministre Mame Mbaye Niang ko wo ba xam mu leer ma nañ on parle la démission de Mame et entre autres ak yeneen ak yenen ah doy na waar bàyyi ma ma jël sama invité parce que j'ai deux invités euh, li ma bëgg wax yépp xajul fi may leen ma jël sama invité voilà monsieur Robert Bourget. mais c'était c'était à prévoir man c'était c'était euh, euh, man ça ne me ça ne me qui ma daal euh, bettuma bettuma que mu am ay démission t'es même bougnou bougnou bougnou bougnou bu le premier ministre Amadou Ba également dama xalaatoon ni aussi dina am mm, voilà dina am ay yëngu-yëngu également parce que voilà donc monsieur Bourgi donc man ngi ouais c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ouais Donc là, j'arrive pas à, la voir. Un instant. Mais moi tout moi Kiko. Pas à vous joindre. Voilà. Quand je rappelle ça, Voilà. donc euh, information je ma jox legi. ma rappelé ma donc information bi donc gis né dès que nous aurons euh, euh, le Premier ministre Amadou comme euh, donc candidat de Benoît Bokuyaka pour la présidentielle 2024, euh, léegi nénéñ euh, dina am donc beaucoup de démissions dinañ am ñu bari ñu démissionné biir camp présidentiel coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir sa APR ñom Mamboy Diawo euh, également ak ñom Mambay Diaw le ministre du tourisme Mambay Niang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu lañ ma jox ni légui légui légui comme information comme mënu guñu jot nak ki nga xamne mom moy monsieur Bourgi parce que moom moo sàkk woon sax waxtaan bi tay moo contacté actuellement il est au Sénégal à Dakar voilà yee information yangi ngi information yangi ngi rek comme pas possible euh ma Abdoulaye Daouda Diallo dem na gisi ji Aly Ndiaye ci avec son équipe donc je répète euh, il faut attendre pour les infos euh, Abdoulaye Daouda Diallo est parti voir Alingou hier nuit avec son équipe kon Abdoulaye Daouda Diallo dem na seeti euh, di ministre Aly euh, voilà euh, dembu ci goudi ngeen ñu waxtaan mom ak équipe am voilà donc gars yi euh, sama informateur nee na mi ngi creuser bu ko défé xamna fi fii ba live bi di jeex wala suñu paré yeneen information ñu dégtal leen ko kon daal beaucoup de remous et je l'avais annoncé hier ci biir APR ak coalition bi di Benno Bokk yakar ñu jël le journaliste wa baax yaay nee na on s'en fout non on s'y attendait on s'y attendait maintenant ñi nga xamante ni ñom ñoo dess euh, voilà ñi nga xamanteni ni d'accord nañ ak décision bi joxante leen loxo mu nekk lu sincère et puis et puis on verra voilà bay leen ma jël El Modou Gueye donc le journaliste El Modou Gueye ah ñu né ils ne font pas le poids amna ñu né ils ne font pas le poids ah voilà ça c'est entre entre entre Benno Bokk Yaakaar entre waa APR comme ni ma la ko waxee euh, El aussi, j'arrive pas euh, à la voir. Ah, euh, Monsieur Bourgi qui, appelle, je le prends. Allô? allô oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Bourgi. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Allez, posez-moi des questions, je suis heureux de vous retrouver. Oui. Et je crois que nous avons passé un long moment ensemble euh, par la voix euh, du téléphone mhm. il y a un mois et demi ou deux mois quand le président a décidé mhm. de ne pas faire un troisième mandat. C'est ça. Exactement. Et donc, et donc là, euh, vous revenez justement pour une autre interview parce que voilà, donc hier samedi, euh, on a connu enfin, on connaît enfin la décision donc du président de la République euh, de nommer, enfin, on va dire, il a choisi, il a fait son choix euh, sur le Premier ministre Amadouba comme le candidat de la PR et surtout de la coalition berno Bokiaka pour la présidentielle 2024. Et là, là, là, maintenant, on m'a donné une information comme quoi euh, il y a également d'autres euh, d'autres d'autres personnes qui vont démissionner. Euh, il y a le DG donc Mambo qui également va démissionner. Le ministre Alingundiaï également qui a démissionné hier. Apparemment, il y aura d'autres démissions. Comment vous appréciez la situation, Monsieur Bourget D'abord, j'approuve totalement le choix qu'a fait le président de la République. Mm. en désignant euh, Amadouba comme candidat de Bénin. Mhm. Euh, je dois aussi dire mhm. que si le choix euh, s'était porté sur euh, Mohamed Boun Abdallah Dion, mhm. ce n'aurait pas été un mauvais choix. Mais le président, dans sa sagesse, a décidé que ce serait Amadouba. je crois que la décision n'a pas dû être très facile, mhm. euh, mais euh, avant de se décider, le président a dû passer euh, le choix au tamis de mille et une données, au tamis de mille et, une raisons. Mhm. Enfin, c'est Madouba, et je crois que c'était un excellent choix. Mhm. Quant vous me parlez des autres candidats, qui n'ont pas accepté le choix présidentiel. Mhm. Euh, je me permets de dire que ce n'est pas très élégant de leur part, mhm. parce qu'en même, il y a eu un compagnonnage mhm. sous ces hommes politiques sous la houlette de Macky Sall. Euh, on va au combat en mars 2024 mhm. unis et non pas désunis. Mhm. Cela, euh, cela est choquant. Mhm. De toute façon, ça n'est pas surprenant de la part de Ali qui, il y a deux ou trois mois, s'était permis de dire euh, ouvertement que le président Macky Sall n'avait absolument pas le droit de se porter candidat une troisième fois. Euh, mon expérience euh, qui s'étale sur plus de quatre décennies mhm. me permet de dire que euh, cette attitude eût été impossible sous d'autres cieux. Heureusement que le président Macky Sall est un homme tolérant, est un homme pacifique. Mhm. Ça se serait passé. Mhm difficilement ailleurs. Mhm. Difficilement ailleurs. Mhm. Enfin, ils, euh, ils vont quitter, disent-ils, mhm. euh, le gouvernement, mais tout ça ne plaît pas en leur faveur. Et je crois que tôt ou tard, tôt ou tard, ils euh, seront amenés à réviser leur position et je leur conseille de le faire parce qu'il n'est jamais euh, opportun mhm. euh, de, jouer contre son camp. Et faire le jeu de l'opposition mhm. euh, ne va pas faire le jeu du pouvoir actuel, mhm. mais ne va pas faire leur jeu à eux. Ils le regretteront, mais ça sera trop tard ils le regretteront et ce sera trop tard. Et même et, même aussi certains aussi, euh, voilà, ils, ont également, euh, euh, ils ont fait des communiqués hier, certains ministres et DG qui respectent et, le, le on va dire la décision du président. Maintenant, est-ce que parce que voilà lors des législatives on sait que certains avaient dit oui voilà on comprend la décision du président de voilà mais c'était pas sincère donc tous unis, ils pourront gagner, c'est ce que certains disent, mais euh, s'ils partent désunis, dans cette campagne, euh, le, parti présidentiel et la coalition présidentielle risquent de d'avoir de mauvaises surprises, on va dire, parce que c'est une campagne très ouverte, tout est possible. vous avez tout à fait raison, madame. Mm-hmm. Tout est possible, mais euh, j'imagine difficilement mm-hmm. le camp présidentiel, même affaibli par ces divisions qui mm. s'annoncent, mm. mais qui j'espère ne, seront pas pérennes, mm. euh, le camp présidentiel, euh, je le vois difficilement gagner au premier tour. Ah je pense, oui. Je pense que je pense que euh, à moins d'une surprise, mm-hmm. je pense qu'on ira vers un second tour je pense qu'on ira. Euh, d'ailleurs, euh, ça montrera que la démocratie existe pleinement au Sénégal mhm. et que le président Macky Sall euh, n'a rien fait pour bloquer l'élection au premier tour. Mhm. Est-ce que ce serait pas trop dangereux justement qu'il y ait un deuxième tour Est-ce que ce serait pas trop dangereux pour la coalition au pouvoir, on va dire le parti au pouvoir il y a un élément qui va jouer mhm. euh, en défaveur du camp présidentiel, ah malgré la grande valeur mhm. personnelle d'Amadouba, mhm. c'est le fait que le candidat n'est pas le candidat Macky Sall. Euh, il va manquer dans cette campagne. Ah, il va manquer. bien sûr qu'il va manquer. Euh, s'il avait été candidat, je pense que l'affaire aurait été réglée au premier tour. Mais euh, ce qui va jouer en faveur d'Amadouba mhm. et du camp présidentiel, au milieu de ces difficultés qui s'annoncent, qui, mhm. se, qui, déclarent déjà, mhm. c'est que Macky Sall va entrer en campagne. Et le président Macky Sall a démontré a souhait son son, sa grande connaissance du milieu politique sénégalais, mhm. sa grande connaissance du terrain, mhm. et personne ne vous dira mhm. que Macky n'est pas un stratège hors pair. Et d'ailleurs, dans une de mes interviews, il y a quelques, quelques temps, j'avais dit qu'il me faisait penser étrangement à un autre homme politique sénégalais qui connaissait le terrain, c'était Léopold Sédar Senghor. Ok. Ok, mais justement, en parlant du président, euh, euh, du président Macky Sall, comment d'abord parlons d'abord de son bilan, et puis euh, voilà avant de parler de son avenir, mais d'abord son bilan. parlons un petit peu de son bilan, Monsieur Bourget. Eh bien, le bilan, mm. le bilan, mm. c'est la construction de mille et une routes. Mm-hmm. C'est la construction d'autoroutes. Mm-hmm. C'est le fait qu'on traverse le Sénégal d'est mm-hmm. en ouest du nord au sud en mm. l'espace de deux, trois, quatre, cinq heures. Mm. C'est la construction de ponts, mm. c'est la construction de chemins de fer, c'est le train, c'est les moyens de transport, c'est les autoroutes. C'est le seul président qui ait construit une nouvelle ville, Diamniadio. Mhm. Enfin, vous réalisez un peu tout ce qu'a fait le président euh, Macky Sall, mhm. les aéroports, trois en Casamance, mhm. un pont qui relie euh, le, Sénégal à la Gambie. Euh, moi, je me rappelle quand on prenait le, j'ai oublié le nom de, vous savez, ce, ce, pont mobile que l'on prenait pour traverser le fleuve. Entre la, entre la Gambie et, et le Sénégal. Oui, Mhm. Non, le, bilan du président est glorieux. Mhm. À chaque fois, on me sort, on me sort. Mhm. Oui, mais la, jeunesse n'est pas contente, il y a eu des événements. Oui, il y a eu des événements. Vous, croyez qu'il n'y en a pas eu ailleurs dans le monde des événements Alors on vous dit, on vous dit, ça flambe dans les rues de Dakar parce qu'on a brûlé un pneu, deux pneus, trois pneus. Et dites-moi, vous avez vu les incendies qu'il y a eu à Paris les dégâts qu'il y a eu à Marseille, à Paris, à Lille, mhm. c'est énorme. Des dizaines, des centaines de voitures brûlées. Mhm. Euh, au Sénégal, il y a eu 4-5 bus brûlés. Mhm. Et, euh, encore, et en plus, cette opposition. Je veux bien qu'il y ait une opposition. Oui, il faut des opposants. Oui, il faut une opposition. Mais une opposition intelligente et réfléchie ne va pas brûler l'université, ne va pas brûler les, les écoles, ne va pas brûler les lycées. Non, Mhm. Non. Mhm. Le bilan du président est un, bilan glorieux, mhm. positif. Ok. Et, dernière question, Monsieur Bourgi. Euh, là, vous êtes à Dakar, donc certainement vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes très sollicité. Dernière question. Euh, comment voyez-vous l'avenir du président Macky Sall Avec le prestige qui est le sien, avec la dimension internationale qui est la sienne, avec l'opinion de lui les dirigeants du monde entier, euh, je ne suis pas inquiet pour son avenir politique. Mhm. Ce serait euh, une chose qui ne m'étonnerait pas mhm. qu'un jour on se réveille et qu'il y ait un nouvel Africain à la tête des Nations Unies mhm. pour remplacer euh, Guterres comme le fut Kofi Annan. Ok, donc vous le voyez au, niveau des institutions internationales. De toute façon, il a le parcours pour. Je le vois au niveau des institutions internationales. Mm. Je souhaiterais que ce soit l'ONU, mm. mais il est déjà, mm. il est déjà le grand sage de l'Afrique. Depuis qu'il est président, surtout quand il a été président de l'Union africaine, c'est lui qui a porté haut et fort la voix de l'Afrique. Quand le, au G20 de, l'Inde actuellement, on, invite l'Union africaine à faire partie du G20. Dites-moi, ce n'est pas grâce à Macky Sall qui a appelé de ses voeux. Mm, mm. C'est grâce à Macky Sall. Les gens l'oublient bien vite. Mm, Les gens l'oublient bien vite. Ça n'est pas grâce au président comorien que, l'Afrique a été invitée au G20. C'est grâce à Macky Sall. Ouais. ça, c'est exact. Non, laissez-moi terminer. Le reproche que personnellement j'ai fait, moi, au président Macky Sall, je lui dis, président, tu es trop humble. Hmm. Tu ne dis pas assez tout ce que tu as fait hmm. sur le plan national et sur le plan international. Hmm. Euh, voilà, c'est le reproche que je lui ai fait et je préfère le dire à la radio. <laughs> D'accord. Et donc, euh, voilà, vos, derniers mots, on, va dire, par rapport au Sénégal et surtout, justement, cette campagne 2024 euh, qui s'annonce âpre ça, ça, va être une sacrée campagne. Une sacrée campagne, mais Mm. Mais vous savez, toute campagne électorale, mm. toute campagne présidentielle réserve des surprises. Bah oui. Et des surprises, mais je vois, ça sera difficile pour le camp présidentiel, mm. mais je n'imagine pas une victoire au premier tour. Ça pourrait être la surprise. Je n'imagine pas une victoire au premier tour, mais pourquoi pas une victoire au deuxième tour avec 52 53 Il vaut mieux gagner avec 52 53 mhm. que gagner au premier tour avec 95 mhm. comme d'autres pays que je préfère ne pas citer. Mm, d'accord. En tout cas, un grand, un grand merci et bon séjour donc à, Dakar, Monsieur Bourget. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois euh, dans nos lives du dimanche. Et voilà, un grand merci euh, vraiment. Et donc voilà, l'avenir nous dira en tout cas euh, février 2024 qui sera le, prochain président, le cinquième président du Sénégal. Un grand merci, Monsieur Robert Bourget. Ça sera Ousmane <laughs> Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bourget voilà donc gars yi di euh, euh, voilà mu donc euh, Robert Bourgi ci Titan Kedal, wax euh, mon jàpp na ne de di démissionné euh, sama cadre non la ko traduire mënoon nañ ne a gore parce que tamit voilà and nañu ak président ba fii war nañu wara mëna respecter donc décision président euh, Macky Sall. également néna fi nga xamné ne lañu jëm di élection présidentielle 2024 régime présidentiel disons le parti au pouvoir la coalition donc du parti au pouvoir nee na du yomb pour que ngeen mun a gagné gisul Ben victoire au premier tour mais bu ngeen joxante loxo ngeen doon ben liggéey te yalla rek tax à Suboba, mun ngeen deuxième tour mom dafa japp comme man ni ma ni élection bi di ñew euh, du doon élection élection bu yomb euh, voilà donc wa APR ñu ngi ma ay message rek euh, sama Donc, yi donc dit ni dem ñëpp mënuñu sax am 3 électoral électorat de Beno Bokk et ces gens étaient déjà dans des listes parallèles durant les locales à part voilà def jox na initiales donc Gaï, yi mu également ni président Macky Sall et ça je le rejoins euh, président Macky Sall bu xam ngeen Ousmane Sonko mom mo xawoon a biaisé l'actualité l' euh, actualité ñu nous ñu ngi doon wax ci bilan président Macky Sall mais c'était inaudible parce que euh, Ousmane Sonko akit akit ak tay tayam manipulation manifestation ak ak nit ñi di dé motax ba nit ñi won euh, euh, euh, les réalisations du président Macky Sall Comme ça appartient aux activistes républicains ñom Nyom ñom ñom ñom Nyom Anita ngeen ñëw Nak ci également bilan wu ki nga président Macky Sall ak également ministres yeeg DG ci télévision ci débat les réalisations et le bilan du président Macky Sall le le national le du Sénégal ni koy ooyee Ousmane Sonko Ousou Bébé Boy Sébikotane il est dañ ko def HS il est hors service donc dugal yobou nañ ko boîte vocale donc mom def nañ ko il est hors d'état de nuire donc c'est le moment idéal c'est le moment moment bi nak mom ngeen wara a les réalisations du président le bilan du président parce que ku ngeen waxal rek dina leen jox nopp bu baax bi c'est le moment idéal pour nous sur les réalisations du président du chef de l'État monsieur Macky Sall euh, Guy, donc de maa euh, également euh, donc qui nga le journaliste El Modou mais juste xamal qui ni campagne bi à quelques mois Dina pas jox exactement ban mois je suis en train de travailler là-dessus dina un programme spécial présidentiel 2024 par rapport les lives du dimanche euh, du ma wax lépp li nga xam ne moom laa koy fas di def euh, di ma koy defee balaa ñu sàcc samay idée donc ñun lu tax ci lu ñu tàggatee moom mooy liggéey ci ay concept yoo xam ne ni sénégalais dinañ ci kontaan kon nag dinaa euh, fexe ba candidat yi ñu wax ñoom ñoom ñoom également lan mooy seen vrai programme pour la diaspora sénégalaise ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ni maa ngi leen koy waajal ci présidentielle 2024 bii di ñëw euh, plateforme bii nag dina doon plateforme candidat yépp incha allah rabi euh, mais lu mu bëgg moom mooy ñu gën a fësal lan mooy doon seen programme par rapport à la diaspora sénégalaise donc gay, bataille euh, ba 51 53 au premier tour rek mou fin ah dina jafe de fait naa Émile la Émile Emile, wax donc APR bi nekk Italie donc moom nee na euh, euh, wabeno benn bokk yaakaar di am 51 ba 53 au premier tour Inshallah, qui vivra verra donc gay, mail may leen el moo duggay ba xam su ma ko jotulee nag ñu mun a di ndar li live bi waaye dal, Abdoulaye Daouda Diallo ah keroog ca rencontre ba safoon na sàpp waaw El Modou maa lay ziar le nuyu bu baax a baax il nous reste 9 minutes euh ma bàyyi la euh, di wax daro euh, dila wax d'abord euh jërëjëf ci li nga dugg ci live bi dila nuyu bu baax a baax a waaw merci beaucoup euh, Mati maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre live bi yëpp. Mm-hmm. vraiment di la féliciter. Mm. mais également de féliciter sa invité bi centre, euh, Robert Bourgi. Mm, oui oui oui. ouais d'abord un mot euh, d'abord ci euh, actualité bi après ñu ñëw nak ci li nga xamné mom mo xew feulé ci ci donc lundi bi passé avons apprécié la situation bi le président qui désigne le premier ministre comme candidat de Benoît Bokk Euh, ci biir coalition bi kii démissionné na Aly Ngouille Ndiaye le ministre nee nañ ma euh, également boo moytuwul Abdoulaye Daouda Diallo moo ciy topp ak ñoom Mame Boye Diao Abdoulaye Daouda Diallo également démb dem na seeti ji Aly Ngouille Ndiaye est-ce que du benn front lañ nar a ubbi bokk àndandoo pour dem ci euh, élection yi di ñëw. c'était c'était prévisible quand même mm-hmm. parce que bon avons annoncé la couleur mm-hmm. depuis très longtemps mais man li ma mm-hmm. euh, présentement nous mën nañ pas nek sax candidat parce que nous euh également euh, comme coalition mais également parti à terre, amna les APR authentiques mhm. les néo APR ak yooyu yooyu yëpp dafay compter ci élection bi ñu jëm mhm. bu désigner candidat parce que c'était prévisible mhm. ñëpp euh, Amadou Ba il s'est imposé de par sa communication de par également sa stratégie il s'est imposé comme le candidat idéal léegi nag def nañ ko candidat forcément dina am ñoo xam dinañ frustré wu. Mm-hmm. mais man jàpp naa ne ñooñu frustré wu. Mm-hmm. maintenant il appartiendra à Amadou Ba d'avoir la capacité de pouvoir rassembler la famille Apéris mais également la famille de Benno Boké. Parce que que foofu rek la ko la ko la ko nit ñi di séntu. Mhm. sa capacité de rassemblement. Mhm. loolu bu ko réussir parce que ñee aussi. Mhm. bëgguñu duñu dañuy bëgguñu tok ci table bi. duñu fay de de ils veulent pas payer l'addition. donc duñu duñu duñu dañuy ñëw également pour ñu bolé leen le di sóoraale leen s'ils viennent pieds et mains liés. ñu joxe seen bopp mais mën nañ leen bañ a sóoraale ci dara comme ay kangam lañ won doon wut. Mhm. s'ils mettent en avant tout cela. Mhm. Euh, que ne ñom donné nekk candidat. Mhm. forcément Amadou serait obligé maintenant d'aller vers eux pour essayer de les convaincre ñu parce que lolu également moy politique. Ah, mais mais mais mais Abdoulaye dawli Diallo est-ce que ce sera. ah vas-y vas-y wa wa Abdoulaye Daoud Diallo ce ne sera pas très facile mais Abdoulaye Daoud Diallo compte tenu de relation yi mu am ak Macky Sall ak li ko Sall defal mhm. il devant le khalif il a mhm. remercié le président. Mhm. wax ko ne dama pour remercier président Macky Sall ci teraanga yi ma defal. and ak man station bu nek mu yobuma mhm. euh tank bu vous mu jox durant ces ces ces douze années là. Mhm. dama sama remerciement ci mhm. xam nga wax kon président malgré que frustration war nañu même président en personne mën arrondir les angles entre ñaar. Vous ma jusqu'à la preuve du contraire. ces ces ces candidats yi déclaré c'est vrai que ils le font également. Euh, c'est c'est pour élever peut-être parfois aussi les enchères mhm. et que, que les gens puissent les approcher wax ak de les convaincre à venir et que nous mën une position ay positions yoo xam dina baax si toutefois nous ñu ñu gagné élection yi ñeu au pouvoir. Mhm. mais japp il pourrait il pourrait revoir. Mhm. leur position mën nañu mën nañu position. nous à rentrer dans les rangs appeler le candidat de la coalition parce que li am amna candidat euh, désigné nañ ko. aussi. Euh, ñoom ñëpp c'était quand même de bons profils. Mhm. mais le profil Amadou Ba aussi vraiment ñu bëri jàpp nañ ne profil bu baax la léegi nag li des mooy moom mooy def le travail bi ci des. ok am na loo xam kenn mënu ko def à sa place. léegi nag du dernière question ci ci actualité boobule gis na ne Youssou Ndour aussi génn na ci coalition Benno Bokk Yaakaar Mambo Diaw aussi gars yi démission, bu démissionné mais surtout la position euh, de de de Youssou Ndour noo ko noo ko également. Mhm. waaye Youssou xam nga Youssou bon man jàpp ma ne sax dina nekk candidat mais Youssou aussi c'est un homme d'affaires et aussi euh, situation humaine nous amène toujours wax euh, les lobbies politico religieux mhm. dañuy euh, dañuy dañuy entrer en jeu mhm. parce que nous aussi avons beaucoup ci réew mi mhm. les lobbies économiques dañuy entrer en jeu dañu tirer ci réew mi nous il faut que nous nous nekk à l'écart xool ban candidat moo gën positionné wu pour dire jël pouvoir nous ñu à a parce que environnement économique est un moment laaj je man bu ma dégloo sànq li Robert Bourgi wax. Mhm. deuxième tour mën na mën na mën mën na mën na mhm. le candidat de Beno qualifié fofu nak le les vraies alliances fofu la ñuy quest gis nga fi mu alliance amagul. Mhm il wax ils peuvent se retrouver parce que aussi dem am rek candidat rangé wu ci forcément dina mais au second tour je pense que la famille de Macky pourrait se retrouver et peut-être l'emporter au second tour. d'accord nous euh, ñëw nag ci Touba bi gis nañ ne Ousmane Sonko yi ex ñoo wax boycotté bi ci sénégalais yi ci dañoo rek ba ci pour la première fois y a eu presque six millions de fidèles à Touba 5 millions yu tek ñu daldi di ci jamm ak salam ku ne ñibbi ci jamm ak salam en quelques minutes def ñu le bilan de ce magal qui a été exceptionnel. Le bilan magal, bi quand même c'est un bilan très largement positif. Mhm. ci wal sécurité bobu ngay wax rek ci ci lay wax tay peut-être prochainement dinañ mëna wax sa Mhm. ci leneen mhm. mais euh, da ngay gis ne que dafa amoon ay menaces yu doon planer sur le magal venant de la diaspora venant de partout ay ñuy di ko lancé di ko wax mhm. tey jii c'est c'est une victoire du soufisme sur le salafisme c'est ça la réalité parce que menaces yi dafa bëri woon ay ay nit aussi di def propagande di wax ne magal du l'islam du charia tey donc lu toll ci presque 6 millions de personnes ñëw participer ci magal bi ñu gis pour la première fois aussi autorité yi disposition aussi côté sécurité parce que la police a déployé un matériel de maintien de l'ordre

général Moussa Fall li mu wax sëriñ bi na ko bu dee nga dem tëdd nga nelaw secteur gendarmerie dara du fa mhm. donc kon ça veut dire que de façon globalement ti li ñu mën a wax rek mooy mhm. màggal bi man même man mii rek mhm. xamal li may li may rendre compte ci affluence bi mooy man ci sama jëmmi bopp gan yi ma daan am suma kër presque double bi laa am kon ça veut dire que mhm. euh, loolu sondage yooyu ñu joxe ne affluence bi dafa gën a yokku mhm. malgré taw bi malgré ndox yi nit ñi di xuus mhm. oto yi di paan terewul nit ñi ñëw nañ màggal kon dañuy féliciter le khalife général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi mais également di féliciter le président Macky Sall le chef de l'État Macky Sall parce que déployé na vraiment sécurité bu doy nit màggal nañ ñibbi te màggal gi amul benn jafe mhm. mais ndox mi nag est-ce que aussi parce que Touba ca kanam gars yi ñëpp dañuy def liggéey bu am solo mais euh, vraiment li ndox mi xaw na sonal tuuti taalibe yi i pare ya i pare xaw ma na nu ngeen ko dundee yéen foofu. Oh, waaw non non ndox mi quand même loolu mooy loolu mooy revers ma magal gi mm-hmm. ren les gens ils ont circulé difficilement arrivent mm-hmm. t'arrive benn distance un kilomètre mm-hmm. nga def ci trois heures et demie de temps man bi may dem cérémonie officielle maa ngi quitté suma kër huit heures ba onze heures et demie mënuma franchir un kilomètre cinq cent finalement bi cérémonie bi commencé j'étais obligé de rebrousser chemin donc loolu parce que kenn mënul wàcce ci suuf mbedd yëpp daf dafa mhm. donc le nouveau président bi mhm. xamuñu kan mhm. euh, imaginons wala espérons mu doon Amadou Ba par exemple euh, parce que beaucoup mais bu doon par exemple moi je lui aurais suggéré mu liguey ci assainissement ci assainissement Touba mhm. mu liguey à la base gouvernement bi jël en charge l'assainissement de Touba mhm. jël ko bopam amé la construction des routes aussi mu jël ko bopam amé mhm. c'est-à-dire que mën na di associer les religieux mais mu jël affaire bi en main de ci ak ñi nga xamné ñu melni ay Touba ci kanam ak ñoñu nga xamné ne tey ñi ngi déployer mais nak ils n'ont pas suffisamment les moyens qu'il faut pour mettre fin à ça mm-hmm. mais aussi ñu fàttali ne mm-hmm. le les actes incivisme yi nga xam ne am na mm-hmm. avant le magal gisoon nga kii yooyu ñu daggoon mais loolu ça a causé beaucoup de problèmes parce ah, que mooy tuyau yi tuyau yi mooy mooy mooy ay yooyu ñu fàttoon foofu bu foofu yooyu yëpp gis nga ko ci ci biir ci biir kii taa yenn réseau yi hmm. donc yooyu également ak de civi d'incivisme yooyu mooy waral yu mel nii di am mais nag ma fàttali matti te xam na peut-être foofu lay daanele hmm. mooy am na benn bassin bu mag boo xam ne moo hmm. war a yir les eaux de Touba mi ngi nekk ngelimu ñi nga xam ne ñooy population yi ñu war a yi ñu war a euh, euh, jële foofu dëgër piir leen ñoom ñëpp jot nañ seen xaalis mais nangoogu ñoo dem

merci gars kon di di sant donc euh, Lila Ling indi ça c'est voilà donc les grandes lignes de remercier monsieur Robert Bourgi notre invité et Elmo Dougué également qui a fait aussi euh, le bilan du Magal de Touba donc lii nii ko xamee ko Abdoulaye Daouda Diallo fait vraiment de la résistance hein, donc euh, wax naa la xewoon fale ca ndaje ba mom, ak devant le président de la République sa réaction on le juge pas je donne juste l'information émission euh, également xam ni ni on a tourné la page de Boy Sébikotane donc euh, monsieur euh, monsieur Gatsa Gatsa maintenant léegi ñu ngi ngi ngi ngi ñaan donc Ousmane Sonko on a tourné sa page également de maximum de cœur à l'état du Sénégal parce que fii lañ nekkoon di xataraayu sama genre mais may xataraayu ci Ousmane Sonko état def ndànk ndànk ndànk ndànk bañ ko ne niib jàpp def nañ ko de manière mais sans trace de de manière professionnelle nous nit ñi maximum de cœur à l'état du Sénégal aux forces de défense et de sécurité du Sénégal donc quand ñu ngi leen di remercier bu a Casamance seen Boy Sibi nañu euh, euh, euh, Bébé voilà donc centriste également de Ziguinchor mang koy récupérer également la mairie de Ziguinchor qui Abdoulaye Abdoulaye borom Ziguinchor

voilà ñoo àndoon bokk suñu combat contre Oussou Bébé mais bokkuma ci yéen waaye nag vous êtes vraiment comme des amis pour man ah bugguma ngeen am benn yoon gàcce ci kaw ci kanamu ñan waa ko Oussou Bébé fexe leen rek bu bu bu leen bu bu bu leen mos ree waa us kër Oussou Bébé bu leen mos ree voilà xeex bu baax ci réseaux sociaux yi donc encore une fois fofu la jeexalee donc plateforme bi à partir de maintenant plateforme la pour tous les candidats donc de de de à la présidentielle 2024 Inch'Allah, d'entrer donc programme bu bees pour tous les candidats Nous inviter leen fi su ko defee ngeen mën voir, wax lan moy sen programme euh, pour euh, la diaspora sénégalaise également sen bébé ci Sénégal jàmm ak euh, bon début de semaine semaine bu doy war lay doon ñu ngi leen di xool di leen di bayyi xel yeen wa Benno Bokk Yaakaar da ngeen poñe bés bi. jërë ngeen jëf